mbokk yi ngeen baal ñu buñ defaale bees motor bi dafay tàng <laughs> kenn mënta naa ci koor gi kon mbokk yi des mbokki benn ak benn la asaabu cheikh ci njiitalu alaaji tafsir caam ci daara asaabu cheikh bi ci jumaa fan bi dellusiwaat nañ ci daara ji ci jaayirmaan bi ci xaaju ñaareel bi ci xatu cent quatre-vingt-dix-huit lan la Cheikh wax mu ne <clears throat> wal xaasilu li am minasa ci lii ku li yëpp an na man <clears throat> naka képp koo xam ne habada jaamu na allah allah azza wa jalla képp ko jaamu laa li wacci yii te jëmmam jaa tax lam yaxu ju génn àndaay sarane ci ëtt bi nga xam mooy ëtt sarane doon na xëy na jëm ci beneen pour moom képp koo xam ne yàlla yaa ngi ko jaamu te jëmm moo tax kon yaa ngi ci ëttab sarane nekk ko ci feneen yaa ngi ci ëtt sarane ilaa annahum lu mooy nag ñoom nag ñuy jaamu ci jamono tax moo téléphone dañu uuti ñuy jaamu te yàllaa tax dañu uuti fa baadoom ñenn ña la war a loo ñëpp ko ala ibaadati ci jaamu yàlla taala woo coow jamono tax am na ñoo xam ne tax ñu jaamu yàlla bu ne alxaamilu bu xaaloo ko mooy la ko teg ba tax muy def jaamu nga mooy alaw ci jëmu ji loo tax anasi al ahali anasi ki nga xamante ni ah, sa warabum moo leen yëngat bi maanaam li leen jeq li leen yëngat ba tax ñu jaamu jëm yàlla ja rek moo tax wa naxar naxado kon naxaduhum naxaduhum buur loo na leen kon ilaa jëm ci jëmu yàlla ja rajaaw fadlaa yaakaar nga ne yàlla taala loolu moo leen buur loo yaakaar nga ne wa tiqaa iqaab bi tiqaa iqaab bi ak mat ndëkku ay duma am na ñoo xam ne la ñuy def ba tax ñu jaamu jëmam ja mooy la ngëneelu yàlla la yaakaar ak mooy ci li mu mbugalam waaw walaay yi ñooñu laay moom ñoom am sareet ñooy gars yi yi waa sareet ñoom yàllaa tax waaye nag ngëneel la ak moytu ndeku safaraam wa baadu ñenn ña xamalahum teg na leen ala ibaad lay jaamu yàlla taala kawe wonno hoodoon anniɓor ileyi haa jemti jemute la tax ñu jox di jaamu yàlla ak buur maarifatum xam bay xam bi jalaalihi fooraay yàlla wa kibriyaayi ak réyam nga waxasama ci ak màggaaya mbag ñoom lii lañ xam xam ne ne kii ñuy jaamu ni jalaalam bi moo naa ko ku mën a teg ay jalaal nit ku rëy la koo xamante ni maanaam mooy kibriyaa kenn mun ta jëflante moom ku màgg la koo xam ne ci ku jar a jëflante la bañ xamee lii faabadoohu ñu jaamu ko xaalaahu du mbëggeel wa sawq ak cofeet ilay jëm ci yàlla adaaw boo xam ne àggale na ko laa xir boobu yët yi bi maanaam mën na caa joxe nag xaq xir ci loolu moo la ko jox lay cëru ruboobu ya lam laaj ruboobu dana ko def ndax lim xam ci ruboobu ya boobu mu def ay waligam laa li di ndul pour benn aajoo tax xam ne ne kilifaan boo xam ne mën na kilifa santaane na li man maa ko def rek ndax moom ma ko sant foofu mu dem ba tey <clears throat> alxaarifoon ñett ñuy xaarifoon wasiba xaseyni lu dul ñaar ñi nag ka jaamoo na la ca sene ak ka jaamoo nii ci maay xaalikun dafa xarab laa ebaatis di jaamaloo ñu ko fan la rawoon naa ani di ko am ñaar ñii rek ñaari bunt yi nga xam ne jaamoo yàlla ñetteel bii moom boobu moom doo am ngëneel doo am jaamu yàlla doo am caaboy jaamu yàlla ndax lan bëgg àddina bëgg bu ëllëgee mu fajal ma sama julli comme ni nga xam ne ñenn yàqar ni wax wax démb boo amee soxla nangoo jaamu yàlla soo ajoo fajoo nga bàyyi <clears throat> tan lii day yeete la xamal rey ma ko yàlla yaram alaaw yàlla yow mi may déglu yal na la yàlla yërëm anal akwaanaa naka nekk téefi bu ñu akwaan mooy am ñi li yàlla amal xen da xaarifiina fa aarifiina ñi xam ñoom bi nisbati buñ koy dendale ilaa jam ilaa la jam teel xala assa not noo jàll ñoom buñ jëlee nekk téefi da ko dendale yàlla bi nasar ñuy xool ilaa saatiha seen jëm ya ñoom bu ñuy seet nekkite yi seen jëm yi ci côté yàlla ñoom ñépp ala ati sawaay ñoo yem ñoom buñ xoolee xaari fi ni ñoom amuñ ne kii lii moo gën ak kii moo gën dañ xool yépp ci seen jëm ya ci yàlla rek boo xoolee yàlla moo moo di ay feññeek waayam duñ wax ne kii moo gën kële moo gën ñoom laa tax di la amul gën laant laa ñel ko min saatihaa seen jëmm ya gën laante amul ci wala tasrifa amul gën a foorant laa ñel ko wala tafaawuta amul sutante déedéet ñoom gënul gën laante amul waaye nag ku leen gën laante moo yàlla moom kii gënul kii waaye yàlla gën la kii gën la kii amal fat la yeddi laa ñu ñoo for ñu gisee man la maa gën mënuma laa gën léegi nag ki mën a gën lante mooy kii gën lante rek loolu mooy moo tax bu boobaa te gis nga fii boo fi defut bootul na waaw yàlla toll lii déet fii moom moom maa bëgg a feeñee fii maa fi feeñee nii ah kon nag sa yoon nekku ci laa tabdila laha min sawaatiha wala tasrifa laha amul garab forante wala tafawta amul sutante ilaa min xay si fatliha lu mooy wala boog faddalaha lu mooy gënal la ko xaaliquha ku ko bind rek moo ci gën lant la diw laa ëppale ngëneel ci kii diw laa gën a def mu gën a baax kii kon yow nag bul damu moo tax fii nag boo xamee lii doo damoo ci li la yàlla may diw xam nga ne yow maa la gën a rafet xam nga ne maa la gën a nangam lii yow kay dañ laa jox nga leen bi loo xam ne àllu jàmbur la soo dikkee di ko xool kii da ko ca xeet te naw sa bopp mooy indi nañu rekki looy indi nag ñu ne ah yow gannaaw dama laa may nga waroon na ca sant nga ciy tiitar di ko tiitar si kaw sama jàng nangu naa ko moo moo moo tax fii nag boo dikkee da ngay ragal yàlla ji nga man may taalibe bàyyi sax warula toog ndax yow indoo sa bopp ci bàyyi man kii man taalibe Cheikh laa ma moromu kii waroo ko wax war a xam ni daal kii moom mooy borom ngëneel jël na borom ngëneel boole la ak moom su ko neexoon mu jël la boole la ak saay-saay nga ànd ak bàndiya indi ma lii ah dégg kon nag lii <clears throat> cey waay waay waay nañ jàng nañ topp ci waay kon nag lii la nekk nag ah su ko defee illa min haysu fadallaha xaaliqaha ka ko gënalee mooy ka ko bind ka fal aarifoona aarifoona yi xatoxoo ñoom dañoo kuppi nasroom seen xool xan akwaani ci nekk te fi ménage saatia du xool jëmm yi xaari fi nii ñun doñ xool jëmmi ni kité fi déedéet ah ñoom lam yaaru joo jàdduñ jëm ilaha jëm ci jëm ya du wëcin ca façon ya wala xaalin du jaageel doxal ya duñ xool jëmm ya duñ xool doxin ya jëmmi diw ak jëmmi diw ak defi jëfini diw ak jëfini diw seen yoon ca nekk chey xam nga lii il faut que ñu dégg arabe bu pire pire mun koo dégg wolof yi bu ko mën a pire su ko defee ñaar yëpp day tax te loolu yëpp fëttu yëpp ci fëttu la bokk ñoom xaari fi bi waa ji kii moom a gënal kii ah, ku rafet kële moom a gën a nangam déedéet jigéen jii moom a gën a jële góor gii moom a gën a góor kële déedéet yaa lee tax ñoom ñoom dañoo ko yàlla tànnal ma lee tax istiqaar bi nga xam ne mooy istiqaaru yonent bi da ngay dikk ne allahumma inni astaqiruka dégg nga wa astaqdiruka yow lay tànnloo yow lay yow lay ñaan nga dogalal ma man mënumaa tànn mënumaa dogal su ko defee boo ko ñaanee ba mu jeex nga toog nag lu mu la dogalal baax gis nga lii ne suñ ko defoon seet boo xam ne dangay dem ci ko xam ne la muy seet xamu ci dara du la indi problème <clears throat> lii nii moo tax xaarit boo xamante ni génn goo ëttab seetlukat doo aarif tey boo agee fii da dem ba léegi doota seetloo kenn ki mën a gis ngay wax ah ah bilaay lii moo lii moo rafet moo rafet ci ci ci ci mari kon nag lii lay ñàkk ñoom wala yi bon ñu bëgg say an dara minha li saatiha kaa inatan maa kaanu lu nekk ak lu man nekk bëggul jëmam ji wa kullu maa si wàllahi lu laaw xasanana wa jalla oo moom min ha mi ngi bokk ci yàlla jox lu dul laaw rek ma nga xam ne ma nga bàyyi ko ca ca jëmm ji nga ne mooy borom jëmm ji li saa ci xaal seen jëmm ji kaa inatan maakaar nekk-nekk ak bu man nam nekkee bàyyi ko fenn ci boppam ma nga bàyyi ko ci laaw wa kullu ma siwa laahi azza wa jalla fa huwa min ha wala yi bona min ha damay jikk duñ bëgg loolu illaa ma ahaba loo xam bëgg ko laaw laaw laaw bëgg na jiw bëgg naa diw laaw bëgg na julit bëgg naa ko laaw bañ na yéwén bañ naa ko kon yow dootoo méritee sa bakkan fii la nga mën a jaar ba yar bakkan ba gañ a boo xamul lii bakkan dana la dana la turbale ba juum loolu waaye booy bëggee ci laaw demee ci laaw bakkan du la mën a tëdd fii nga mën a jaar ba tëb bakkan na lii nag sëriñ daf lay fexe ne la orienté di ba nga xàmmee loo war a bëgg ak loo war a bëgg ak na ngay bëggee soo ko defee rëcc nga nag wala yi boona mi ne ma abala wowum ñoom xaari fi nii biwu bi ci bëgg ak laaw yu yi bon lañu bëgg luñ bëgg ah wama sërëfoo loo xamante ni ñu ngi koy fonk ñoom waa Alioune lépp lu ñuy for boo déggee sërif sërif mooy lu ñuy fonk wala lu ñuy foral innama huwa nekkul loolu ñu foral ak fonk bi tasrif yu laay lu mooy ci fonk ak yàlla koo gis ñu fonk yàlla tax ñu fonk moo tax wëli fonk ñu de wëliyu buñ fonkee lii nag lii nag boo ciy fonkee yàlla dana wan wëliyu woo xamante ni eh yow gannaaw man ku ma fonkay fonk kaay moon la ma fonk nga dem lii kon nag boo gisee li may wax ni kon nit ñi wëli yi nit ñu ñooy utal sëriñ bakkan moo leen utal sëriñ bakkan moo leen utal xarit bakkan moo utal jëkkër réccu rek waaye soo demoon tey nga dee bëgg ci bëggam yàlla yow tey moo lay bëggloo ka nga war a bëggloo kon nag ñoom kuñ fonk fa innama huwa bi tasrifi laahi xasa wa jalla wamaa lépp loo xam ne xasamuhu yàlla fonk na ko xasamuhu ñu fonk wa maa loo xam ne xaqaroo xaqaroo xeeb na ko xaqaroo ñu xeeb ko ñoom xeebatuñ kenn ku xaqi xeeb laaw xeeb xeeb nañ ko ku fonk ko mooy waaye nag ñun tey déedéet bunt boobu yëpp seytaane fakk na ko ci politique ci par parlo ci da nga man ko islam dañ fari fari boo utee par parlo rek da ngay man sama gars yi fuñ jaar lay jaar gars yi ay jumkat ay cuune ci nekk uutal benn waaye boo xam ne cuune mukk kooku fu mu bëgg fu mu bañ moo tax nag lii xëy révolution ay kuy dem di dëkk kii révolution révolutionnaire dëgg dëgg révolutionnaire bokk révolutionnaire yàlla fii la ko ma ne waaye koo xam ne moom bu nit ñi bañee manifester ma bu bëggee ma bëgg man nangam nangam moo tax léegi boo gisee ñuy campagne kan yi campagne pour ñoo ñoo tax ñuy campagne waaye yàlla dëgg dëgg dëgg kenn mënu ko campagne day xool rek ku yàlla ne waaw mu ne waaw bu ne dee du dee lii nag <clears throat> lay nag wama lépp loo xamante ni wadaxoo tëral na ko mooy daan na ko lu laaxu tëral wadaxoohu ñu teg ko ci suuf wama loo xamante ni madahoo tagg na ko madahoohu ñu tagg fii nag la tagg yi baaxe tagg fi fireenote xam ka nga war a tagg ka é <laughs> dioo ma neex rek dioo ma neex rek walay <clears throat> koo waayoo mooy waay waaw dée ku yàlla tagg ñu tagg ko wamaa képp ko xam ne sa mahoo yàlla xas na ko sa mahu ñu xas ko xas ko yéeféer yi nga xas leen xas la naa nga xas naa waaye diw moo bon ndax nangu maa may diw moo moo bon ndax faalewuma déedéet <laughs> yàlla bu ne ko bul faal diw mën nga mën ba mu xam ne dañ ko wax na ko bul faal diw bu la soppee dañ ne ko soppal diw kon nag moo tax ba nga ko soppee da nga cay dem ndànk ndax kat dañ laa booleeg moom ngay xool kala booleeg moom nam la jaar loo moom rek ngeen di ca jaar ci lii mooy tar ji nga tarbiya fii mooy tarbiya waaye jàpp ko gi ñaari fa ñett rek nga ne dara amul loolu moom loolu moom sangukaay la sangu pour mën a tarbiya moom mooy jël kurus gi sangookaay la pour mën a tarbiya tarbiya mooy jikko yi nga xam moom la yàlla jikkoo moom nga ndaxte yàlla kenn la waaye jikko yi bi nga bëri jikko yu baax yi ak jikko yu bëri moo am jalaaliya ak jamaaliya jikko yooyu nga dikkee nag xam koy doxee loolu muy tarbiya soo cay duggalee tarbiya bi ñu ci tarbiya nag ngay avancé loolu la tuddee tarqiya nga xam tey lii xamaat tey lii xamaat tey lii xam jaar-jaar bi xam mooy ci ndëkk bi loolu moom lañ tuddee tarqiya mooy ah diw day avancé na de amul xel léegi mi ngi gën am xel de kon yokk nga nga yokk xel loolu mooy tarqiya loolu lañ tuddee ba tey sëyu dox man nga xool ne ah diw day ngi dox du xelam maa ngi dox de boo ko déggee rek du gën a rafetaat du gën a amaat dafa gis xel ma gën a awaasaat kon nag lii la nekk wama lépp loo xamante ni ab xadafoo bañ na ko ah yaa baqidoohu ñu bañ ko lu yàlla bañ buxdu mooy firi bañ xadamu mooy firi mer lu yàlla bañ ñu bañ ah lu mbëgg bëgg foofu ñoom aarif yi kon xam nga ne aarif bëriwul léegi aarif boo xamante ni nga nekk ba ci kër baay taalibe baay bàyyi loola taalibe baay muqaddama baay dina bàyyi ko bàyyi loo muqaddama baay muqaddamu tijaan dina bàyyi ko muqaddamu tijaan kon ndax taalibe Cheikh Tidiane nga ndax aw nga fi Cheikh Tidiane wax déedéet moo tax nag boo dikkee yow mën nga am kësu goo xamee ni kii de xawati yoonu Cheikh Tidiane kii de awar ci yoonu bàyyi kii day awar ci yoonu yonent bi ndax yonent bi sil man xataaka waxtu man araka kon nag ñoo bokk benn yoon yonent bi ko wala ku la ku la jox ko xam nga kon yonent moom de ku la ku la xañ jox ko ku jox ko la bàyyi wax kon nag mën ngaa xam ne kii kon kii ci eh, yonent bi la kii kat yonent bi kii day dikk dëgg yàlla melokaanu yonent la melo melokaanu yonent ak nabi yi moo ko meloo kon xam na melokaanu wilaaya melokaanu wilaaya boobu la taraf meloo kon ki am na ñetti melo yëpp yii lii kër mooy fànnaaw boo déggee fànnaaw du lu nga toog mel na yaa nekk de da nga dikk de jikkoo jikkoo ya ñetti ñetti jaam yi fa du xulii fi ibaati duggal sama jaam yi melal jikko yonent bi jikko wilaaya di ko xilaaf benn jëmm moo am benn jëmm ji nag même kenn ka desal ci kenn desal ca na muy doxale kon won na la doxinam ca nubóo bi nëbb yi won na la doxinam ca wilaaya ba won na la doxinam ca xilaaf ñett yii boo meloo kon nag bokk na ci xaarifi nii da ngay bëggee seen bëgg na mu bëggam da ngay bañ ndax yonent yàlla dina bëgg li mu bëgg la mu bëgg la ndax wala bi dina ko def ndax xalif bi na ko def kon nag lii moo la xamal nag kon nii la demee kon nag ngeen nekk xolo dikkil nii danaa danga da nga ragal set fii nga war dikkil yaa toogee foo war toogee ah de eh, kon foohum ñoom mahalaayi lillaahi yi dégg nga de wax ñoom ñu ngi ànd ak laaw ci fan ci martabaam bilaay ànd ak lilaay ca martaba ci martaba xam yi ñetti martaba yii nii bëgg a dikkee yaa ngi nekk ma allaay lilaay bilaay nii kon nag moom mooy li wax saa yoo xamante nii nga waxee yoon bi da nga ko ubbee da ngay xam ne kon nag aadiya ka dikkoon aadiya aadiya aadiya aadiya aadiya nag amul fi aad aad aad aad nag mooy kat allahu allahu allah kon fii ah xam nga léegi wane jàngale dañuy wane de waaw wane nit ñi maarifa bi ku ci nekk arrière manque ah kon kala kala kala ko jaarle moo jaarul yoon moo tax man laa jaar yoon ñoom nag lii la nekk de laali anfusihim duñ nekk ci dara pour seen bakkan tax wala bi anfusim duñ sukkandikoo seen bakkan wala maa anfusim duñ ànd seen bakkan seet li nga ko indee de xam nga na nga àndeeg maa àllaay lillaay billaay buñ dikkee laa li anfusihim wala bi anfusihim wala maa anfusihim ndaxte laaw am na nafsu beneen laaw am na beneen da ngay dàq nufoos yëpp da ngay rey bakkan yëpp ñetti bakkan yi seetal li naf si aybun li fu aadi aybun li rooy aybun ñett wax kon ñett yooyu moo la nekkee kon dafa am nafsu boo xam ne mooy nafsu nafsu fu am nafsu dafa am nafsu ñoom ñii nag boo delloo euh, nit ga boo delloo ruuxu ba boo delloo xol ba yii yëpp boo ko delloo ak boo delloo faal boo delloo ruuxu yii yëpp kon ñoom dañ korosante ak fii ba nga xam ne mooy ni sa xaqaay soo leen delloo dàq natt bi ñoom ñu dellu fi nga xamante ne mooy seen liggéeykaay kon nag lii doo fi nekk pour sa bakkan liggéey sëkkale ko sa bakkan ana sa bakkan déedéet léegi yow booba faqat fan yet jeex na iraadatuhum seen na mel taata iraadat laay soroon na mel yàlla lii mooy fànnaaw iraada lu gën lu jege na jeexal iraada man amatuma lu may nam yàlla noonu na mee gis nga bokkate bàgg ci namel bi boobaa yow yow ku la ku ñu war a mooy dëkku ga yow jëmi iraadu juga bi maanaam kon muraad ngay nekk dootu nekk murid muraad ngay nekk moo tax fa ini muraadul xaq xam nga muridu kon yaa ngay nam kon fànnaawu ko loo bëgg man Oustaz Gueye rek laa faale man Oustaz Gueye laa bëgg lu tax nga bëgg ko def maa neex moom dafa am xorom déet baaxut na ko bëgg lan ndax yàlla rek yàlla rek waaye boo ci bëggee raqa de du dox su ko defee nag yow nag boo demee yàlla rek laa ko bëggee yàlla dina gën a puus di la gën ngay gën a jëm di gën a jëriñ su ko defee nag lii moo tax mooy tawhidul ilaahi wéetal na meel moo tax bàyyi bi mu dimbati ñi nga xam ne mooy nit yàlla taraani muraadan laa muridan moo tax muridu maqaama maqaama bu suufe la muraad nag ci nga jëm si muridu yàlla buñ ci dee muridu xam nga yow dane xam di turidu wa uridu soo namee rek ah su dee yàlla moo la nag ci sa bakkat booba yaay murid ndax kon taalibi taalibi am na yombul de muridu laahi nag mooy boo ko déggee rek mooy koo xam ne koo xam ne muraadam laahi la muridu laahi mooy muraadu laahi waaye muridu ustaas gi kii taalibi ustaas gi def moo tax mu daante yàlla bu mu am taalib foofu <laughs> waaw ah. gis nga fii si <clears throat> la ñuy dem ba léegi nag nga nga am liberté yi nga am liberté yéen ñaar ñi am da ngeen di ànd ci liberté boo xamante ni yéen a ngay bëggante jëriñante yépp te bëggante wu leen jëriñante woon dañ leen sant bëggal innamal mu'minuna ikhwa way gëni dañoo bokkoo nga bokkoo ndax da ngeen bokk bëgg-bëgg ak gëm-gëm foo bëggee ñu ñu jiyoo ngaa bëgg lii ma bëgg lii ah baaba bëgg lii baaba dégg nga maam biraan bëgg lii ah boobaa day moo indi indi xuloo yu bëri waaye bu ñu bokkee bëgg-bëgg <laughs> ah ah tarbiya amul de lii boo jël jël lii soobaat na jël jël course jël ko de lii ngay jël ko de léegi lii nii soobookaay baa ngi nii soobul ci jikko yi rek mu daal di ko na rek mu daal di jeex tàkk kon nag ngi nii kon nag nii lañ def ñoom ñoom amuñ lu ñuy defati ci dara faqat fan yi eh, faqat fan yet iradatihim iradatuhum taata iradat laay waxtiyaarul ak seen tànn jeex na taata ixtiyaari laay yàlla ñoom daal seen nameel ak seen tànn boo déggee nameel xol a tànn mooy jëf tànn jëfin fa tànn bëggin ak nameel ci xol ba kon nag boobaa ñaari fànnaaw da koy am fànnaaw nga ci xol fànnaaw nga ci jëf boo jëf da jëf lu tax nga jëf yàlla ma ko sante lu tax nga bàyyi ko ay yàlla ma ko bàyyi lu tax nga bëgg ko bëgg loolu lu tax nga bañ lii moo ma ko bañ loolu kon nag mooy jeexal nga iraada jeexal nga ixtiyaar ñaar yi nag boo leen jeexal <laughs> akkata moo tax gis nga li bu fekkoon ci ne nit ñi tey dañoo bëggoon ñu baax dañ leen jàngal yoonu mbaax wi kese may leen nag indépendant xanaa man oustaz bi su fekkee ne man bëgg naa nga baax ma dimbalee la nga ba nga baax xanaa doo dem bañaan ma xanaa doo ma ñàkkal fayda xanaa doo doy rek su fekkee ne su ma la naxee ci nga may doy ci nga may doy kon du dara yow yi doo dara buñ naxante naxlante da ngeen di naxante naxante baaxul de nañ <laughs> a ah, xam nga <coughs> li gaaw xam nga naxante eh, baat bu ñaaw ma teg ko ci ngeen baal ma ko naxante noqante ci ngeen la mujj naxante foo dégg noqante naxante naxante moo moo ci ko du saaga li ma wax du saaga jàpp jàngal la <laughs> waaw boo <laughs> ko dégg rek naxantee ko jiite waaw waaye bu ngeen naxante la wax dëgg du baat boobu du de waaw kon nag lii ngay jeexal nag iraada ci ron iraadaan nga jeexal ixtiyaar tànn taata ixtiyaari laahi wa nasaruhum seen gis-gis taata nasar laahi dañoo jël seen gis-gis dàq seen gis-gis jël gis-gis yàlla foofu ñoom yuy boona bëgg nañ xaarisu yi bëgg nañ al anbiya anbiya bëgg nañ leen ak ñan wal malaayikata ak malaaka ak ñan wal awliya ak awli bëgg nañ ñetti lu tax li ajlillaahi ndax laa wax saw jàll yàlla bëgg na yonent yi bëgg na malaakaam yi bëgg na wali yi ma bëgg naa leen gis nga lii buñ ba tawit bii taalibe yi dugg ñooy waaye dañoo dévier ñun ñëpp déviation la jaar kenn jaar grand route bi siraatal mustaqim lañ caa jaaru moo ñu indi problème bariwul kay su ko defee wa yëkkëroona ñoom nag ba nañ li dahum lépp lu safaanu ku safaanoo ñeneen wala malaaka yi wala wul yi ku safaanoo ñoom ñu sa ku yàlla safaanoo safaanoo na ñëw ñoom ndax yàlla moo safaanoo ñoom bi maanaam bañ nañ nooni wali yi ndax yàlla leen bañ bañ ne nooni malaaka yi ndax yàlla leen bañ bañ ne nooni ambiyaaw ndax yàlla leen bañ kon lii lañ ñëwee yow ah wayetlu boona ñu ngi sàkk aljanata ajjana li aj li ndax moo bëgg ajjana laa li xaradil xëy yi du benn aalibu yàlla yàlla daal moo sopp ajjana mooy kër soppee ni wax dëgg yàlla kër soppee mi sopp naa ko ndax nañ ko kër soppee ma sopp ko kon maa bëgg lii laa bëggee lii nag <clears throat> suñ bëggee taalib yi baax te jàngaluñu ni mun na def mun te dem waaye nañ fexe lii nag lii wala lii nag dëgg dëgg yàlla xam naa de su fekkoon ci waaye seytaane moo moo su ko yéen yéen am télévision yéen man télévision yi ñu xanaa ngeen dem seen website rek <laughs> ci seen website moo tax moo fi des bi waaye nag yàlla ngi gindi ñi nga xam ne tey am na ngay toog ba nit ni nekk te fekk àddina woo la te nan nan euh, mbind si tuuti si nga xam ne ci ruq si tuuti si nga xam ne kenn xamu ci hmm. ñu nekk ci suñu ruq si de ah yàlla moom ci loolu yàlla moom moom ruq si mooy côté saare waaye télévision du côté rajo du côté saare dara du côté saare borom saare bi moo koy saare ay jaamam ku ko neex dan la kaay déglu kaay déglu kaay déglu jàng bi kaay lii di wax lii di waxi ustaas téere lii waxi borom téere way laa wasal jëm ci boobu maana al isaaratu joxoñ bi qawli cheikh waxi cheikh alxaarif bi nga ci nit ku xam la parce que da nga mawlaana abdusalaam ibn misis wóliyu yàlla xaarif la boo xamee ku xamal radiallahu anhu xaysu sa alwoo ba saasali saasali ak nga xam saasali moo laaj xabdu salaam ibnu sis xam ah, wirdin muhaqiqin waaw yow eh, sëñ bi ñi dëggu ci yàlla nan la ñuy wirdaa wirdaaw na xàqi huwa lan la <laughs> dégg de koy xam li ma wax mii ni kon waaw wirdaaw yu xam nga wir daaw wir daaw mahjub ak wir daaw xaaris ak wir daaw xàqi borom xàqi bokk ñu wir daaw déglu fi baax na soo fexee baax bi fii déglu ko waaw léegi lan mooy wir daaw borom xàq yi maa huwa fa qaal mu ne isqaatul hawa wa mahabbatul mawla ngay rotal mbëggeel ba bànneexu bakkat bëgg borom borom bu mag mm-hmm. rek kat gis nga fii boo ko defee taa yoo xam ne sa xol bi génn nga ci bëgg àddina mm-hmm. def ci bëgg yàlla sooy sikkar yaa ngi sikkar soo sikkaru yaa ngi sikkar mm-hmm. waaw fii moom moo tax ñu ne nag boo déggee ñu ne nelayu borom xam-xam moo gën jaamu yàlla koo xam ne xamul kii lañ wax de kii lañ wax de waaye borom xam-xam bu gàddi ay nelawam kay mooy lu bi ñu ne waaw waaw xam-xam boo xam ne àgg na ci nga nga waddal sa bëgg ba nekk bakkan bëgg laaw lañ wax kon nag lii la kat isqaatul hawa wa mahabatul mawla waaw génn lépp luy bànneex bakkan ci suuf teg ko ci suuf nga bëgg mawla xam nga moom mawla la ñun bu ñu wax ñun bu ñu wax mawla ñun <laughs> ndax te xàqu lañ kon isqaatul ma euh, hawa wa mahabatul xaq ñun foofu lañ dem ñun <laughs> ah <laughs> ah <laughs> ndax li neex naa xam nga lii day xamee ni ñun fay romb nañ lu mu yàgg moom kam jàpp ne mooy Maola ndax yàlla da yàlla dinañ day guddee Maola loolu tur tëri kon nag ñun isqaatul hawa wa mahabatul xaq waaw kay. <laughs> ah. ki ko laaj. mooy Abdusalaam ibn Misis. moo ko laaj ku ñuy wax dina am eh, saasali kon moo ko laaj saasali ah, moo ko laaj saasali tontu ko tontu bi ñoom nag ñooy wàllu yu njëkk yi jiitoon Cheikh Diagne. waaw kay ñun nag bi ñu nekkati ak Cheikh Diagne ñun. Eh, ñun ki ñu bëgg moom xàq <laughs> ah kon gën a ñoo ko te koo xam ne yaa ko gën yaa ko féetee kaw boo demee da ngay wan ne kii de yi fi mu ko waxee baax na waaye ñun de fi ñu ko bëggee fii la waaw baax na de ca yooyu jamono waaye nag tey fi ñu ko bëggee tey nag romb na foofu de ah, <laughs> ah kon ñu taxaw foofu ndax buñ jàllee dañ dugg ci ruq boo xam ne xaw guddal tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.